fan yi ñu gis ne réew mi xawoon na tàng réew mi xawoon na jaxasoo euh, noo gisee loolu. waaw loolu moom lu mën a xar la. dëgg yàlla lu ma mitti la lu ma mitti. billaahi wallaahi parce que dam naa boo ñoo xam pour ñu ñëw dafa man émission sax moo wax ci mais dañoo jàpp xam nga boobu saa yi journaliste yi ñu ngi ci song gaay yi mbooloo mi. parce que suñu gaal gi Sénégal suñu gaal la suuxee ñëpp lay suuxal. boo dañuy toog naan réew mi day na tàkk na tàkk si tàkkee. yu ne sa sa di nga lakk kon réew mi ñu na nga ko defar yaa ngi dégg te ànd ci jàmm moo gën nguur noo yàlla ngay fale man da képp ku fi yàlla teg ànd naa yow. billaahi wallaahi képp ku ci borom teg ànd naa yow man moom loolu moom dama ci noppalu ko ñun nag ñun Sénégalais la ma ci problème ma man nañu xel ni ba mu yéeg mooy yéegee ñu commencé nga xëcc ak gum wàcc kon di ko jooju di ko jooju na fexe mu dañ su ma gisaa la jógee soo koy nekkee wala kenn ko fa maa nekk na ko jàppale te yàlla tax xam ne yàlla mooy fal nit. nit nag mën tax fal bëgg fal bëgg falaale ñëpp mënta ne soo ko mën tey jii faloon tey jii yàlla dafa tey mu ne président Sénégal ba nañu ñi xeex nii ñëpp ñi xeex pour Sonko ëllëg faloo fol leen dafa ñu te yàlla tax loolu xam nga xam bu baax yaa ngi dégg tey jii si faloon tey jii ñooñu ñëpp tax ne Sonko war a xolam ministre wala député moom moonu ko kon il faut ñu gëm yàlla xam ni Sonko day ko yàlla xam ne yor réew mi tamit mën dafal ñëpp mën da jox ñëpp poste fii il faut ñu xam ni kenn mënta matal lépp suñu borom daful kenn mënu ko yàlla mën naa matal sax lépp léegi kon doomu aadama mënta matal lépp ñi sàngat sutura xam solo ak femme boobu tamit ci ñoom Sonko loolu mën a xara tamit femme boobu moo xam naa ni kooku moom kooku turu sa bëgguma xaa tudd kooku moom ah loolu dafa bon kooku jik nit ku bon la parce nit ku baax daf loolu nit lu tal nit ver nga nga tiyal ko kooku kooku kooku la quoi amul ak ma parce que la wax la dëgg su lay dëgg la war a mais imagine nga kilifa ko dal ni Sonko nga jëm loolu mën a xar la loolu du yoon Macky Sall tamit gouvernement tamit waroon na xool baax li ñuy def ñoom it wala ñuy dem di ko yenn projet war na ngaa xoolaat bu baax kilifa warul dëgg teel a ni dam man kilifa si wax daa war a wax lu ko wóor si dem bay topp ni si dara ah nit indi ko benn benn benn dossier war loolu mooy yoon parce que doo dëkk ni aywa non non fii teg ku fi nekk di nga fi jugee mu ne la dana xare di nga fi jugee fii Macky Sall mu fay nekk continuer deuxième mandat la mu dem kaat borom yaa ngi dégg parce que loolu waxoon man mii Macky Sall ñi ko faroon si la bokkat yaa ngi dégg ñi ko wotal si la bokk mais tey taxaw day laaj troisième mandat pare naa pour xeex ak moom man sàppuñ billahi ñi ko wotal man si laa bokk Macky ah bokk naa man bokk naa mbëri gën a bëgg ba léegi bañ ma mais dama la ni troisième mandat da koy laaj pare naa pour wàcc. lu tax nga wax loolu c'est parce que euh, li ko warloo ak réew mi dafa mat wala boog dafa def day day laaj loo xamante ni jaaduwul. waaw ah, man la man mat ak manqué moom loolu dama fi wax ndax yàlla moom moo matale te matalul lépp man dama la nu may tax laa dama la ma gisal la yàlla yàlla jàppale bu deuxième mandat bi mu am si ndam dem bàyyi keneen ñëw mais bu mu jéem a xalaat sax mandat. te boole ñun sénégalais yi mun xool ko na xool bu baax ñuy fal yaa ngi dégg kun fal na pare ma xool ba doyul la fal la nan la jàppale te yàlla tax te xam ne nit moo tamatal lépp waaw parce que àdduna yow fi nga dëkk sax mun am lépp hmm. kër nga dëkkee mun a mun a motal lépp sa kër nga dëkk yow da ngay loo xam ne dafa manqué wala ko defar noonu ngay dina wala dam dee doo ko defar kon suñu borom moo par exemple ay man dama gisal la ah, ñu mbër ay nit de te ragal bi day a wërsëg yaa ma la ñi ko watal si laa bokk man te nëbb ma ko mais dama la troisième mandat moom hmm, ngi yàlla bu mu ko xalaat sax man nag élection yi ñëw nii dinaa xool ko ma doy wootal hmm, la ko moo doj ko xam na moo tal xam naa ni jàmm daal moo gën si àdduna bi waaw parce que da nekk si dëkk di ñaan dëkk bi tàkk tàkkee mën na laa bañ a parce que mu jàmm jàmm ak parce que àdduna nekk loo xamante ni lépp loo si àdduna ah dana war waxtaan déggoo ciisoo hmm. te bari na lii bi ay yàq neexuma neexul kenn yaa ngi dégg parce que am na ñoo xam ne nii da ciy raxaale ju profité te loolu baaxul xaalis ku bëgg na ngay liggéey xaalis ku bëgg na ngay ñax man maa ngi kañ laa gëj a bëre temps ans maa ngi liggéey sama liggéey yaa ngi dégg sama temps nu ma toog bëre ma loolu proposé loolu wax na ma ko pour ma dem si duggal loolu jubóoti ma bañ. Mm-hmm. lu non c'est que moo tax maa ngi ñaanal sama mbokki mbër ñi xool teg seen tànk bu baax parce que soo toogee bërëb boobu lu leen la ko jéem a dugal pour nga jëf si dugg pour. ak mbër yi nga wax yi nga xamante ni dañu leen di lim ci nerf yi wala boog ñu naan est-ce que du mbër yi ñooy nekk ay nerf loolu tamit bi nga ko déggee wala nga gis image yi loo ci xalaat. man de sama askan moom ma gën gënal président sama askan moom ma gën a Macky Sall sama askan moo ma gënal Sonko man xeexloo ma kenn mhm. yaa man damay garde maa ngi nuyu sama père Moustapha Sylla maa ngi maa ngi garde mais yàlla xam na ne Moustapha Sylla xam lay wax xeexloo ma la xuloo ma la. billaahi wallaahi dama ni su ma ko xeexloo wax dama la xeex parce que man lépp ba koy teg si yoon dinaa défendre sama sama leader bu ma ànd ba kenn ko gaañ mais nag ñëw pour gaañ askan wi yaa ngi waaw mais dama xam ne ñaar mooy mbëri ñi ni ku fi jël noonu dina doxaloon naka ngi yaa ngi juum quoi sama mbokk mbëri xaw ma am na si ma góob si am na si parce que Sénégal ñoom doo réer ñu ne am bon nga. benn vidéo yoo xamante ni ah du ñuy mbër ay vidéo noonu gars yi ni ay mbër noonu ma gëmm ni mbër bi bokk na ci parce que sooy supporté doo leen gaañee kon ku ne seetaane. kenn xaw ma ko de te ñun askan Sénégal mënoon mënoon am man de intérêt Sénégal moom gën a intérêt président wax dëgg yàlla président moo am si àdduna rek intérêt Sénégal moom gën a intérêt kenn nit waaw parce que dëgg yàlla sama réew moom du ma ko yemale dara waaw te fii tam am dul waaye tam ñu jox leen cër bu baax. sonn nañ ci tool non vraiment a naw. naam ay erreur am na si ñi faatu yéen tamit yal na yàlla xaajana. xam ne yàlla moo bindoon si loolu la door faatu nit ñi fa ñu xam loolu. suñu borom. ku ne bindoon la waa rey. billaahi wallaahi ñi faatu. lii ñu faatu suñu parce que yàlla bindoon nañu lii naa war a deewee yàlla na yàlla xaajana àjjana gën a kawe. parce que suñu euh, Amdoulaye ay jàmbaar dëgg la. ji si nekkoon jàmbaar. Mhm. kon. mun naa gën a ñaaw. billaahi dama leen ñaanal yàlla yàlla jàppale leen baax xam ne tam ñun ñun ak ñoom ñoo xor quoi askan ak ak alhamdulilah ñoo xor parce que ñun tey war ngeen a noo dëgg wala alhamdulilah nga génn dem ci àll bi. Mm-hmm. nga dem ci àll nga xool leen fi lañ a nekk sonn ci rey seen bopp. billaahi di nuyu sama gaañan jamaa ak jàllo gendarme jamaa gendarme maa ngi leen di siyaar baax ñooñu yaa ngi nuyu commandant yi bëri maa leen siyaar bu baax parce que ñoom war ngeen noo dëgg nga dem. sama benn policier bu baax moom tamit cuun moo ngi ca mbuur. waaw danga mën la gars yi wax dëgg yàlla ay jàmbaanoon kenn moo leen a fay da ngay tëdd ñu lay ñu lay garder nii fa ay militaire dugg woon kon saa saa yi dugg fi ku ñàkk jox am na loo cër génnoo ba gis nii dañ ñoom mm. man sama fay taxawee di garder ma loolu a fay kon ma ñu leen a fay ñun ñoo am quoi ñun ñoo am ñoo ñoom ñoo for kon na rafet quoi parce que fii kër goo gis am na am de loi kon doo gaañ doo génne am de loi bi nga gaañ nit sa rakk nga gaañ ñi ne si ngaañ am de loi suñu bokk na ngaañ kon na rafet quoi xam ni nguur day jeex si loolu day ji àdduna bi kon na rafet mu lay wax Sénégal yi na rafet quoi di ñaan yàlla na yàlla jox gën si réew mi maa ngi ñaan yàlla si ma gis yàlla jugee ka gën kon maa ngi ko yàlla yàlla na suñu borom jox ku gën ci réewum Sénégal yàlla na ko si yàlla na ko yàlla jox wasalaam. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum adduna Pape Fall Waly maa leen di wax ne leen ah rek mën nga fex leeral koo xam si bëgg a sa yaram.